français am wala li allemand am lépp. mais doo voté. alors loolu rek euh, mooy différence fondamentale. mais am na yenn homme d'affaires yoo xam ne hmm. fu leen dégg naa ñoo si deuxième tour yi am na homme d'affaires yoo leen gisanteeg ñu jàppale leen te ñooñu bu leen protéger de. mais jàppale Macky Sall si deuxième tour ñi nga xam ne dañoo ŋara woon. non non dem ne nekkoon non non. ci Abdoulaye Wade lañ leen xamee non waxuma la ah. ah. yoo xam ne ñu ngi woon ci Abdoulaye Wade. ñu xam leen. Hmm. ñu am fi ay marché yu doy waar ñu war ko lijjanti audit ko ba nga xamee ne affaire baa ngi jeng ci deuxième tour yi dem nañ gisi Macky Macky Macky Macky Sall pour dafa am loo xam ne waxtaan ak eh, moom président Macky ah, ah, président Macky dafa am loo xam ne daf ko wax hmm. dafa ni hmm. nekku fi au service d'aucun lobby protégé wul kenn garantirul kenn impunité hmm. li dëkk bi laaj mooy état bi taxaw taxawaayu état amul parparloo njaboot gi ñëpp benn lañu li ko itteel mooy fexe ba njaboot gi feex donc nekkul ci ay logique gu damay protéger kii wala dara pouvoir bi dañ ko ko jox. te ñooñu ñooñu seen dossiers yi ñu ngi ko yor ñun dafa garaaw dossiers yu garaaw hmm. nee na moo ma mooy. moo yi ma utilisé ci ñenn. ma euh, rek ma terminer euh, moo yi mu utilisé. Hmm. dañ koy delloosiwaat pour nit ni dégg ko. dafa ni amul impunité amul pastroit ko hmm. kooku important dafa clair ñaari moo yooyu wax. mais ñun UNACOIS bu bu fekkee ne benn membre UNACOIS bu jubadi. Hmm. ñun bu ñu xam dootul bokk UNACOIS. wax naa la ko fii ci émission nee naa la ku jubadi ku ne. képp koo xam ne joxoñ nañ la. Hmm. ci wàllu jubati ci àllu réew mi nga sakkal ko pexe dama wax ne doo yendu UNACOIS. alors keroog dañu euh, xott sa kaar sa kaar. très bien alors vous préparez les législatives Benno Bokk Yaakaar wala da ngeen di tas. non ñu ngi ci benn bokk yaakaar. Ah. parce que xam nga aussi kooku il faut que ñu waxtaan ci waxtaan bu sew. <laughs> Euh, en général nit ñi dañuy foog ni lu bees la. Hmm. mais bu fekkente ni te yow yow yow yow xarañ nga ci wàll yooyu soo nga ko seetlu. Hmm. Euh, coalition bi ñu ne. Hmm. ñu ngi ci depuis 2009. <laughs> Benno Siggil Sénégal lañ démarré 2009. di ci avancé. di ci dox ndànk. ba tey jii. ak contexte yi nga xam ne ñoo ñëw. Mhm. lenn suma rango ñëy wadd. Mhm. jooyu ma de <laughs> rango ñëy wadd. non mais affaire yi non <laughs> non da a sonn nag. xam ne da ngeen sonn. Euh, nelaw nelaw yee doyul gis bu <laughs> bu leen euh, jekkoo ñi ngi ci euh, bi ñu tàmbalee. Uh-huh. jëm ci ay local waxtaan bi day gën a yomb. Uh-huh. parce que nombre de personnes yi ngay investir ñoo gën a bari. Mm-hmm. bu ma jëlee commune bu mel ni Medina fi nga xam ni man fa ne. c'est une commune de 66 conseillers. Mm-hmm. donc defar liste yi moo gën a yomb te jamono jooju ñu ngi doon door a tàmbali mooy fàttaliku bi ñuy dem mm-hmm. Benno Siggil Sénégal Médina 18 partis la woon. te gis nga tey jii fi ñu toll. mais xaaral ma ñëw rek contre la kooku point de vue la. mais man man dinaa waaw. parce que xam tax. Mm-hmm. man pour man dañoo war a natt seen doole bàyyi baare avoir un parti hégémonique dem assemblée gis nga ñii bu ñuy am doole fii ci assemblée national gars yi soppi jikko. non non mënul nag. xam nga dafa am ay nit bàyyi sensibilité yëpp ñu exprimer wu à l'Assemblée xam nga réew dafay am mu toll législative bi législative bi moom gëmuma ne non non loolu mënta ne xam nga réew réew dafay am fu muy toll mhm. rassemblement moo gën moo gën te fii ñu toll nii problème yi fi ne défi yi ci ne il faut que rassemblement am ñëpp ànd bokk direction waxtaane ko ba génne Sénégal ci gutte gi mu ne mhm. donc looloo tax rassemblement bi li tax rassemblement am importance réforme yi nga xam ni moom la nguur gi namm jël wala war a jël moo xam ci wàllu urgence comme ni mu koy defee actuellement wala ci wàllu lu gën a structurel réforme yooyu ñoo soxla baas sociale bu yaatu mhm. ñetteel bi nga xam ni moo taxoon ma tàmbale ci 2009 mhm. euh, dañu war a jàpp ni 2009 ba léegi ñi ànd ñi ngi ànd di góorgóorlu di sàmm seen kàddu lu mu metti metti metti jaar nañu fi ci épisode candidature unique mm-hmm. taxul ñu tasaaroo mm-hmm. dem nañu ba bi ñu gisee réalité bi nit ñi waxtaanaat seet naka la ñu mën a continuer ànd mm-hmm. la nga xam ni moo fi ne et je pense que tant que mi ngi fi njëriñu Sénégal lay doon mooy combattre ensemble comme ni ñu ko defee gagner ensemble comme ni ñu ko yàlla mayee gouverner ensemble comme ni ñu amee yéene bi lu mu metti metti faw ñu tënku ci et ci wàll boobu je pense que ni euh, Macky Sall président wu alliance pour la république def na ci effort bu bare respectewul charte foofu. def na ci. assise dañ na ku nekk président doo doon secrétaire général parti. oui non mais attends dina respecté charte mi ngi door a ah, toog mais gis nga may nañ ko non ñi ngi door a toog. ne lu mu bëggoon waaw de la république. nga wax ne mon parti. ma ne ko sa parti falu la. non yëpp des na. sa parti falu la man yaakaar naa dina ci revenir dina dinañu egsi ci lu ne. parce que gis nga euh, dañu nekk ci benn dynamique consolidation démocratique. Hmm. ak seetaat yoon yuy wóoral. Hmm. yépp bari li ñu war a def dafa bari parce que demoon nañ fi ba dëkk bi dafa am ñett yoo xam ne daf ñu sonaloon donc loolu buñ ci génnaatee rek nañ am jàmm ñett yi ñu sonaloon mooy nekk nguur goo xam ni li mu gën a mën. Hmm. mooy bañ a respecter loi bi donc nguur gi fi ne il faut que muy respecter luwaa bi. ñaareel bi nguur gi fi ne woon lépp lu doon institution daf ko nasaxal néewal ko doole institution yu dëkk bi il faut que nga yëkkatiwaat leen. Hmm. ñetteel bi nguur gi dafa dem ba fàtte soxla askan wi parce que nekkatul woon dans la position d'agir pour les population il était préoccupé de durer. Hmm. nguur gi léegi li moo bëgg a def nekkatu fi pour jéem a durer dafa bëgg agir parce que lee won ni nekkatu fi pour jéem a durer bëreet ñu jox la mandat wu juróom-ñaari at nga tënku ni dama koy wàññi def ko juróomi ñaari mandat la ma constitution bi may dinaa ko respecté voilà donc bu fekkente ni perspective wu ñi nekk ci nguur gi ñi nekk ci nguur gi seen perspective mooy bañ fee nekk nan damay wuti cinq mandat wala dama fi toog cinquante ans ñooñ da nga yaakaar ni comme diir bi fukki at la bare na ci liir buy door a juddu ah. waaye barewul ci mais est-ce que di ngeen ñu musal ci transhumance mais kooku sénégalais yi ñoo ko exiger man d' accord naa ne ñun ñuy ci ministre yi bari na mais man d' accord naa mu bañ ma fay nommé ma ministre chargé des transhumants. waaw nga toog ci kuy waaj a transhumé kuy rek mu yëgal ma ko. Euh, non transhumance transhumance. Euh, mais am na ñu aay nag. ay paa yu aay yoo xam ne dañuy wax ne. oui on va reprendre fekk ñu ngay contourner. oui <laughs> non xam nga <laughs> euh, ah, jamono dafay dem jamono dafay ñëw dañ nekk ci jamono boo xam ni. Mhm. jamono boo xam ni. Mhm. ñaar mun nañ ko rafetlu. Euh, lii nga xam ni alliance pour la république yàlla may na ko ak ñi mu àndal. Mhm. liggéey moo leen ko may. du combine du ay bricolé du dara liggéey moo leen ko may. ak saxoog sa kàddu. sénégalais yi nga xam ni ñoom ñooy décider. gannaaw bi yàlla dogalee la muy dogal. daal ni ñii doyloo nañ leen donc teg nañ leen. Mm-hmm. donc jaratul ngay nekk ci ay chemin yoo xam ni nit ñi bëggatuñ ko booy jiite da ngay déglu li nit ñi bëgg. Mm-hmm. nga def ko li nit ñi bëggul gis nga éviter ko wala nga bàyyi ko. Mm-hmm. donc je pense que éthique boobu. ci la président de la république donc dafa am ñetti mandat la leen boo leen fi investir transhumant man dinaa am campagne. ci législative non non kooku boo ko defee sax bu baax li sii ni ci nekk. Euh, ku ci nekk ñetti affaire daal mooy boo buggee tënk. li président Macky Sall tàmbale euh, mandat bi njëkk mooy éthique respecter mhm. kàddoom respecter engagement te boo nekkee ci dëkk boo xam ne dem nañu ba wax bi fi gën a siiw mooy wax waxeet mhm. donc il faut nga delloo siwaat kàddu ci place parce que kàddu dafa am solo ci sunu ay société mhm. ñun bu ñuy mayee jabar sax kenn wéeru ko ci ay kayitu ñu bind ci kàddu ak waxtaan ci biir jàkk ji seen nax can wi mat na seet nax yëpp mat na kàddu googu nekk ci diggante ñaari góor donc kaddu dafa am solo ci sunu mhm. société. donc delloo siwaat kaddu ci statut am nit ñi soxla woon nañ ko te ci la nekk ñaareel bi mooy méthode bi muy doxalee. Mhm. méthode bi muy doxalee dafay concerté wu ak nit ñi xool li nga xam ni techniciens yi war nañ ko mën a génne mu sukkandiku ci loolu. daal di jël décision politique bi daal di koy ànd ak moom. ñetteel bi bu mu latee aussi. non du du latee ñetteel bi président bu latee bu ñu pour terminer sax mhm. na mu ko waxee ci biir campagne bi. Mhm. agir ensemble pour le développement loolu lay mandargaal lépp dëkk bi moo soxla action dëkk bi moo sax moo soxla ñu boole nit ñi ñu agir pour nit ñi dugg ci la mu waxoon muy yoonu yokkute. Mhm. donc yoon boobu la ne te yoonu yokkute ku ci bëgg a dugg. da ngay jox nit ku nekk cëram. Mhm. da ngay jël moyens yi nga def ko ci fa mu war a dem mooy ci askan wi. nga mam bu si transhumance bi. transhumance bi moom defe naa li nga ci wax moo ci nekk vraiment bu ñu sañoon comme que ñoom seen partie ak ñi mu coalition. bi ñu àndal ba am euh, coalition bi ñu àndal coalition bu am doole la te a bari nay cadre hmm. soxlawuñu ay wax ne ay porteur de voix la ñu te te demoon bu ñu doonoon ñun daal fii ñu leen di xaare ba pare doon sama parti sama base amuñu dara waaye itam koy ñi ngi koy bàyyiloo hmm. population bi wala ñu ci bari assise moom dina ko respecté non non man respecté wul assise non non assise da nga waxoon ne waaye day doog a tàmbali dama wax ne amagu fi un mbay xam ne nag defagu fi ko mbay Ndiaye mbay Ndiaye man sama xarit la mais mbay Ndiaye nag assise dafa naan tuuti assise xam nga ne man maa doon président wu commission d'organisation bi mu a wax ma la ba mu ñëwee assise mais surtout man problème par jour bi ngeen wax léegi mhm. wax naa ko publiquement ne ko ñun loolu mooy li nga xam ne problème éthique boobu mhm. ci président de la république mooy li ñu gën a soxal président de la république mën ta wax di dellu gannaaw kooku man wax naa ko mu toog sax moom devant le président Mokhtar Mbow ak ñi nga xam ne ñooy parti partie prenante assise yëpp j'étais euh, euh, la personne qui qui posé sa problème te li mu nekk mooy mel na ni tenir na ci compte parce que et problème éthique lu ko ñor la hmm. ñu ngi koy déglu di ko suivre mais daal xam naa ne le fait que mu nekk secrétaire général u parti bi ministère de l'intérieur bi ah problème éthique bi yaakaar na ñu ne problème mu yooyu yaakaar ñu ne lu ko lu ko soxal la hmm. ñu ngi koy bàyyi xel nag surtout ministère de l'intérieur bu mu nekk partisan nañu jéem a sa solution. Mhm. pour que képp koo xam ne ni élection yi ci yow la dépendre nga nekk ku neutre. Mhm. kooku daal bu amoon sénégalais yi seen xel dina gën a daal. pour lu tax ngeen nommé un ministre de l'intérieur partisan. Mbaye Ndiaye moom kenn gënu koo politique. waaw non mais gis nga dafa am yoo xam ni euh, xam nga léegi dañu wax ni dañuy war delloo administration bi. Mhm. ci neutralité bu rëy. du dëgg. loolu buñ ko amee dinañu war a mën a ni yenn problème yi Euh, amul solo trop. man ci suma lu bopp j'ai toujours milité. pour que état bi ak administration bi organiser ay élections ci sunu ay dëkk man moom laa mos a moom laa mos soutenir. comme en France comme dans d'autres pays voilà comme dans tout pays mais kooku bu administration bi bu administration bi ñu ko bëggee def. war na mën a ne te war nañ ci am tegtal bu tuuti dañu seet ki nga xam ne moo fi nekkoon le ministre en charge des élections Cheikh Gueye. depuis Abdou Diouf mooy le directeur général des élections élection yi fi am yëpp moo ko organisé. Mhm. daanu Abdou juf mhm. daanu Ablaye Wade. Mhm. mi ngi sukkandiku ci administration bu neutre ak ay autorité locales yu def seen liggéey donc effort bi aussi yoon bi du rek ni supprimer parce que mën nga supprimer ne du ma nommer ku nekk ci parti li ministre de l'intérieur war a xam te mbay Ndiaye le ministre de l'intérieur xam na ko nekkul foofu pour faral parteem nekkul foofu pour faral coalition dafa ne ci wàllu élection d'abord li mu fay njëkk a def. mooy assurer sécurité nit ñi ak bien yi loolu lañ ko denk ñaareel bi ci wàllu organiser élection li président de la république di xaar ci moom ak premier ministre Sénégal yëpp di ko xaar ci moom mooy mu teg élection yi mu jaar ci yoon amul élection yoo xam ne dafa nekk fa pour faral parteem mission du faral parteem ah, donc effort bi effort bi ñu war a def mm-hmm. mooy consolider neutralité bi nga xam ne gis nañ ko ci administration bi ba en 12 ans même équipe yi organiser élection ñaari régime daanu fi avec la même administration donc bu ñu liggéeyee bu baax ci biir administration bi dinañu gën a yokk seen neutralité. Mhm. gën a yokk seen ay moyens pour ñu defal Sénégalais yi élection yi. alors euh, on est pratiquement à la fin de cette première partie le mot de la fin. Mambou après avant di ñëw ci may ma ma remercier euh, membre UNACOIS yi nga xam ne ñëpp ngi toog di seetaan tey sa émission bi. Mhm. di ak consommateurs yi nga xam ne nii di di doon nañu déglu pour xam exactement prix fan la toll maa ngi bu baax nag président wu UNACOIS ak parce que lii tey ñu. Idrissa Idrissa Idrissa ñu ngi koy remercier bu baax. Euh, Idi Thiam nekk na koo xam ne nii euh, ku mat kilifa la ndax li mu taxawee mook secrétaire général bi ak ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ci liggéey bi liggéey ku mat moo ko def ndax loo xam ne matugul. Euh, mais problème ko. Euh, kooku moom euh, réglé <laughs> naturellement tey jii. mais naa ko yaa ngi am crise yu mel noonu non ko mhm. COSEC bi mhm. moom loolu moom c'est terminé nekkatul président conseil d'administration ba bokkutul ci conseil d'administration ba. kon loolu population bi yëpp ko conseil des ministres loolu kooku ñoom la de. waaw voilà mais seen conseil non non mais je c'est vrai mais je veux dire aussi que yëngal ngeen bu baax. Euh, conseil des ministres bi moom. <laughs> waaw mais c'est normal. waaw mais <laughs> <laughs> ah, léegi daal fi may jeexalee papal yi. waaw mooy ginnaaw donc bi ma la santee gërëm mm. la ci invitation bi nga xam ne defal nga ñu ko ñun waa UNACOIS. Mm-hmm. par à travers ma personne. ñu ngi lay sant bu baax di sant waa 2STV di sant seen ay téléspectateurs. Mm-hmm. di sant itam euh, secrétaire général gouvernement bi nga xam ne euh, man communication bi dafa mës neex. et ma koy gën a encouragé. Ah, euh, di ko di ko xamal ne rek population baa ngi koy bàyyi xel. Uh-huh. parce que directeur de cabinet ministre du commerce ah euh, booba la ñu xamante laa xamoon laa ko xamoon te mel na ni tey la gën a euh, gën a gën a jàpp li nga xam ne lii moom moo gëm ci Sénégal. Mhm. mooy bëgg réewam taxaw pour que Sénégal changé te loolu Seydou moom la ñuy xaar ci yow di ko xaar ci ñi nga àndal. xam naa ne par parloo du sa jikko. waaye lii ngi leen yàlla jox tey. su mhm. ngeen ci wul def ko ni ngeen ko war a defee yaakaar naa ne dina yàgg ci seen loxo ndax kenn du leen Seydou conseil dégg naa ko baax rafetlu aussi euh, soñ yi nga may soñ parce que li nga ma wax da nga ma soñ rek pour ma gën a tënku ci li nga xam ni moom lañ suñu borom sant. Mhm. mooy dëggu ci lépp looy def. Euh, parce que lépp lu ñu fi abit it fii lañ koy bàyyi xajul ci bàmmeel. duñ ko fi yóbbaale donc nañ ci rafet rek. Euh, ñaareel bi mooy ñun fen rek lañu far Sénégal foofu la far. te ci texte yi nga xam ne ñoo structuré alliance pour la république. dafa mel na phrase boo xam ne ñun ñëpp dañ koy wax régulièrement depuis quatre ans et demi depuis quatre ans moom la ñuy wax la patrie importe plus que le parti. te foog moom la ñuy jéem a mandargaal parce que boo tënkee li Sénégal yi xaar lu mel noonu la rek ñu xam ni njaboot gi dafa sonn ñu war ko dimbali ñu xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk def fi lu jub def fi li nga xam ni moom la Sénégal yi soxla mais ñoom ñu bëgg a expression maa ngi fàttaliku Macky Sall ba mu fi ñëwee 31 décembre ba ñuy wax ci kii mu ne la magie du clic fera face aux flics et aux frics. <laughs> ma ne la la magie du la la magie du clic. du clic oui est plus puissante. que la force. du flic ou du flic. <laughs> <laughs> non loolu moom mooy. mais nag mais mais temps yi moom il faut mu ñëw tamit moom ba mu nekkee président ba léegi du wax. il faut yow yaa ni président bi na wàññi ci télé. non non dama ne mais non non dina ñëw. dina ah, ah. dina ñëw. non dina ñëw na fi def li fi <laughs> di dem ay. non non di pop di dem France di waxtaan ak. mais vraiment Papa Alé merci. merci euh, je pense que nii dañu nekk ci benn période boo xam ni euh, li fi jóg. Mhm. te ñu koy rafetlu mooy yaakaar. Mhm. te yaakaar mhm. moom yomb na jullit. Mhm. parce que jullit bu nekkee jullit rek yaakaar ko tax. donc yaakaar boobu nga xam ni moom la yàlla wàccee euh, ci mbaggu ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi. muy premier ministre bi ne ni rafetlu taxawaayam. Mhm. muy président Macky ne ni am ci moom yaakaar. yàlla nañu yàlla may kattan. ba yaakaar googu mën na bañ a yekki. jërëjëf alors euh, jërëjëf Seydou jërëjëf Mame la